asalaamaaleykum euh, chers internautes yéen yi nga xamante ni yéenee seetaan euh, TV réew officiel dalee nag jàmm fi nga xamante ni moom mooy la la place de l'obélisque fii euh, nga xamante ne ñëw tey ci ubbeeteeg li nga xamante ni moom mooy camp de yu installé fii nga xamante ni moom mooy place de l'obélisque ngir amal li nga xamante ni mooy vaccination yi ginnaaw bi nga xamante ni ñu doon laaj ngir ñu mën a déjà ngor ci li nga xamante ni moom mooy hôpitaux yi waral nag kilifa yi di jël dogal daal di def loolu nga xamante ni moom mooy ay camp a yombal wàllu vaccination yi ngir gëstu li nga xamante ne am na fi euh, boo la gisee suñu ginnaaw nag gis ngeen affluence bi mu demee ci nit ñi nga xamante ngi euh, euh, ñi nga xamante ñoom ñoo ñëw ngir vacciné wu ak laaj leen lan moo nekk seen priorité ak lan moo waral ñu ñëw ngir mën a vacciné wu aussi aussi seen message bi nga xamante ne dinañ ko lancé si ñenn ñi nga xamante ne ba léegi gëmaguñu mbas mi donc laataala ñuy dem gisanteeg ñi nga xamante ñoom ñooy autorité yi fi nekk tey muy médecin chef bi fa la nekk a Euh, naka la mbir mi demee fi nga xamante ni mooy place de l'obélisque ak ñi nga xamante ni ñoom laa àndal ak suñu équipe euh, ak ñi nga xamante ni ñoo ànd ci réew Rewmi TV euh, fii ci place de l'obélisque ci camp de vaccination bu Covid 19. non vaccin bi Sénégal yi gëmuñu koon bu njëkk waaye léegi ñu koy gëm par ndànk-ndànk man mi sa gëmuma ko woon ah man mi gëmuma ko woon waaye léegi xam nañ ne feebar yokk na bu baax bu baax a baax te léegi Sénégal yi ak jeunes yi léegi dañoo war a ñëw vacciné wu dimbali dimbali seen seen seen waa kër moo moo moo moo gën a baax quoi waaw moo gën a baax. waaw feebar moom gëm ak ñàkk gëm fu mu toll nii moom yaakaar naa ni duñ ci sax waxati ndax ku nekk gis na rawaat yu muy def yu demee noonu bon ñi taxaw tamit ñi gëmuñu ko bon peut-être ils sont inconscients rek loolu la quoi. mais boo conscient yi tuuti am ñoo xam xamante ne xam nga leen yow tamit gën a nekk ñoom guddeeg bëccëg mu yóbbu leen kon doo def yoon lu dul dem jël sa matuwaay dem vacciné wu. responsabilité rek la ah. bon dund ak dee moom mu ngi loxo yàlla l'essentiel ñun dañuy def li ñu war ñëw vacciné wu et puis surtout waaw loolu ma sant yàlla bu baax ndax euh, dafa am lu fi nekk muy mbas mi mu nekk loo xam ne jaaxal na àdduna yëpp ñu jàpp ne vaccin bi bokk na ci li nga xam ne mën na mën na mën na nekk remède par rapport ak euh, li nga xam ne moom mooy mbat mbas mi prévention la ah tout sénégalais tout citoyen am obligation du du droit du force nag mais képp koo xam ne war nga mën a def dem vacciné wu nga dem vacciné wu Euh, bokk na ci li nga xam ne mooy wàññi aliiru mbas mi ndax jaaxal na autorité jaaxal na ñëpp nga xam ne mooy ñëw ci àdduna bi. waaw sans départ rek xam nga xam bu njëkk moom. vaccin bi dafa dafa dafa dafa jafe woon ba day day day dem pour vaccin wu sax doo mën a vaccin wu waaw léegi nag léegi gars yomb yombal leen ko yombal leen ko Sénégalais yi léegi ba Sénégalais yi gën a mën a ñëw di vaccin wu léegi waaw. waaw jërëjëf di kontaan bu baax di rafetlu bu baax geste action yooyu nga xam ne autorité def nañ ko ministre de santé le gouvernement du Sénégal di gàcce décentraliser les antennes de vaccination auprès de la population nekk na loo xam ne baax na ci population bi gën sant nañ ndax vraiment nekk na loo xam ne population soxla nañ ko consi communication bi nga xam ne moo jàll woon rek mooy la population conscient wu woon situation bi nga xam ne moo moo prévaut la actuellement mais xam nañ ne aujourd'hui vaccination bokk na li nga xam ne moom mooy wàññi allure mbas mi te maay woo ñëpp képp nga xam ne nekk nga Sénégal également nga ñëw ñàkk ndax bokk na ci li nga xam ne daal wàcc dina wàcce kii bi waaw gis-gis bu ñu ci mooy que ni lu jaar yoon la te wax dëgg yàlla lu ñu lu ñu doon def bu yàggal boo xaw na am parce que nit ñi au début li nga wax sànq rek gëmuñu ko woon te mooy loolu mais bañ ne ba gëm ko moo war a rassemblement bii xëy na ba vaccin soo commencé daaw gis kenn dañuy dajji kii di toog affaire yi di xaar pour nit ñi ñëw bon par la suite léegi nit nañ ko moo tax bon gis nga rassemblement ngi loolu yaa ko gis sa bopp mais daal mi ngi noonu daal mais yàlla baax dañuy génn ci poste yi génn ci centre de santé yi ñëw ci biir euh, euh, communauté bi pour permettre à la communauté de ñëw avoir accès facile ci vaccination bi donc depuis ce matin 6h30 nous sommes là équipe de vaccination yi ñu ngi fi les vaccins sont disponibles les gens viennent population bi ñëpp ñëw nañ gis nañ jeunesse bi ñëw nañ représenté mais aussi les troisième âge ñëw nañ population bi vraiment ñëw nañ fréquenté endroit bi pour vraiment ñëw jël seen dose euh, de vaccin presque ñi ñu vacciné moom presque ëpp na presque 600 mais gis nañ ni presque 1000 1000 personnes ñu ngi ni inscrire di xaar donc te liggéey bi dañ ko boole vraiment di travail en étroite collaboration avec la police parce que ñàkk-ñàkk bi neex na ñi ngi def tout mais il faut que les gens aussi reçoivent des informations ñu wax leen information yu leer mais aussi ñu respecter gestes barrières yi parce que avec ça loolu moo ñuy mën a jàppale pour que vraiment li nga xam ne moom la ñuy xeex yàlla dimbali ñu ci ak jàmm ak salaam waaw message bi moom leen rek la comme ni ko suñu kilifa yi defee rek moo ñu jóg dem vacciné wu ndax feebar baa ngi fi te jóge ko fi wax dëgg yàlla. waaw man man man li may li may xale sama mbokk jeunes yi ñu ñëw ndax xam nga rek ndaw ndaw ndaw dafa baax si réew quoi. waaw ndax ndax ndax ndax ndax ñu mën a dimbali dimbali mën a dimbali seen waa kër dimbali tamit population ba ñu dugg ak ak feneen fu ñuy dugg yooyu ma loolu laa bëgg suma sañoon jeunes yi ñëw ñu vacciné wu benn yoon. jërëjëf yéen ñi nga xamante ni yéen doon topp fi nga xamante ni moom mooy Rewmi TV comme ni ñu koy waxee euh, chose promise chose faite li yi a mën yombal wàllu euh, nga xamante ni moom mooy place de l'obélisque euh, gis ngeen li nga xamante askan wax nañ ko lu leen gën a yokk ci ñëw vacciner wu waaye aussi message bi nga xamante joxe nañ ko dégg ngeen aussi li nga xamante moom la chef de district bi nga xamante wax na ko ci ñi jot a vacciné ñu ngi toll ci 600 personnes te am na lu ëpp 1000 personnes yoo xamante ni sont donc mu nekk loo xamante lu am solo gën a mën yombal wàllu euh, vaccination yi euh, gis nga aussi ci wàllu disposition yi nga xamante jël nañ ko waa croix rouge ñi ngi fii waa service d'hygiène ñi ngi fii ñi ngir mën a doxal li nga xamante moom mooy bile liggéey euh, comme ni ñu ko defee fii ne dina am yenn bërëb yoo xamante dina fa am fu mel université fu mel ne yenn bërëb yi nga xamante ne bërëb stratégique la installé nañ fa même dispositif bi ngir mën a yombal nit ñi seen wàllu vaccination ànd ñoom ngir amal liggéey bi jërë ngeen jëf